salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina mbokki Touba ci kanam maam mbay Mbaye Baye Fall Sëñ Abibou Sëñ Fallou di vice présidente commission des finances mooy nuyoo tey ziar di ñaanal Sëñ Mountakha Mbacké Bassirou xalif général des Mourides mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ñaanal Sëñ Abibou Mbacké Sëñ Fallou responsable kanam mu yàgg fi loolu ak wér di ambassadeur Touba ci kanam mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di noonu laa koy ñaanalee sëñ Abdoulaat Abibu jëwriñ sëñ Abibu ci liggéeyu Touba ci kanam bi di ñaanal sëñ suñ président sëñ Abdou Fatah Gueye moom itam mu yàgg fi wér ak mbooleem membre Touba ci kanam yépp rek may ñëw di ànd ak benn commission bu ñu wax commission des finances bu Touba ca kanam ci su commission su commission gestion des fonds pour présenter leen le bilan financier du mois d'avril ñu koy tàmbalee ci maanaam zone nationale bi maanaam lépp li nga xamante ni Touba ca kanam encaissé na ko ci mois d'avril bi bu ñëwee zone nationale Touba mi ngi am cinquante cinq million six cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent trois francs bu njëmee wéyif ci soixante-dix-huit six cent quarante-quatre trente-trois trente-trois ñu ngi ci am Touba Ca Kanam am na ci cinq millions trois cent dix mille francs Orange Money bi ci numéro 78 544 33 33 Touba Ca Kanam am na ci encaissé na ci huit cent cinquante mille francs Wave plateforme bi 30 millions neuf cent vingt huit mille soixante onze francs Orange Money plateforme six millions neuf cent quatre vingt et un mille quatre cent quatre vingt dix huit francs bu ñu demee région de Dakar ñu ngi ci am six million quatre cent quarante mille six cent francs région de Dakar bu ñu demee Rufisque ñu ngi fa am quarante mille francs Mbacké neuf cent quatre vingt cinq mille francs Bambey cent mille francs Diourbel sept cent mille francs Thiès sept cent cinquante mille francs Fuuta Bokki Laaji quatre vingt mille francs Daayira Baabul Ayaadi Añaam cent mille francs Goudiri trois cent soixante dix mille francs Joal cinq cent cinquante six mille francs Kaolack deux millions trois cent cinquante mille francs Kébémer million cent quarante mille francs Kédougou six cent huit mille francs Xombal trois cent soixante mille francs Kolda trois cent cinquante et un mille francs Louga deux millions quarante six mille francs Mbour un million neuf cent quarante cinq mille francs Kafountine cent cinquante mille francs Moudéry cinquante mille francs croisement Diaroumbe soixante douze mille francs Ndiawara cinquante mille francs département Dagana quatre cent quarante mille francs Saint-Louis cent quatre quatorze mille francs Tamba huit cent mille francs ngaay deux cent quatre-vingt-douze mille francs Welingara cent trente-sept mille francs Daaru Muxti cinquante mil francs Ngunjaan cent mille francs Casamance trois cent dix mille francs Matam soixante-trois mille francs Caale Kayen quatre-vingt-trois mille francs ndàngal ba soixante mille francs kujaan six mille francs Koungheul cent mille francs Wurosoo gi trois cent cinquante cinq mille francs jaayante café Baye Serigne Lay ak Kër Baye Laat un million sept cent soixante-treize mille francs jaayante Serigne Pafar ami boutique un million quatre cent mille francs versement anonyme mooy ñi nga xam ne dañoo versé ci banque yi barkeelu ci liggéey bi te xamuñu seen tur am nañ ci lu toll ci million cent 4 millions 591 mille 729 francs fere yi li ñu delloosi ci fere yi toll ci cent 178 mille cent 174 francs total encaissement zone nationale toll ci cent million 130 millions 143 mille 475 francs li encaissé ci zone nationale bi moo tollu ci cent trente million cent quarante trois mille quatre cent cent quinze francs. commission communication budget bi ñu leen génneeloon ñu dellu si waat ci lu toll ci trois cent mille francs. siège bi location yi ñu ci doon fay ñu waroon cee fay trois cent quarante sept mille cinq cent borom na nañ ko ko defal virement ci banque bi ñu dellu si waat xaalis boobu moo nekk trois cent quarante sept mille. 500 francs lépp nekk 647 mille 500 francs zot asi benn versement la am ci mois d' avril bi muy Japon 285 mille francs zone Amérique ñu dem Brésil 702 mille 50 francs Canada 1 million 120 mille francs États-Unis 8 millions 228 mille 700 francs Argentine 570 mille 985 francs total zone Amérique nekk 10 millions 621 mille 735 francs 10 millions 621 mille 735 francs zone Europe Allemagne 1 million 115 mille 783 francs Luxembourg 269 mille francs Italie cinq millions sept cent soixante-dix-sept trois cent quatre-vingt-dix francs Angleterre quatre cent quatre vingt dix mille francs Suisse trois quatre mille France huit cent soixante mille sept cent cinquante francs Espagne quatre cent quarante-six mille quatre cent soixante-cinq total zone Europe nekk neuf millions deux cent soixante-dix mille trois cent quatre-vingt-huit francs ñu dem zone Afrique hmm. Cap Vert deux cent trente deux mille cinq cent francs Angola soixante dix mille francs Gabon quatre cent quatre vingt trois mille cent francs Côte d'Ivoire million deux cent mille francs Mauritanie million cinq cent quarante mil francs Maroc deux cent cinquante trois mille deux cent francs Guinée-Bissau cent un 801 mille cent francs total zone Afrique nekk 4 millions 588 mille cent francs total encaissement reçu ak carte ci mois d'avril bi national ak international lépp suñ ko boolee 155 millions la 556 mille 398 francs 155 millions 556 mille 398 francs loolu la loolu la ci dugg ci mois d'avril bi ci Touba ci kanam ci biir réew mi ak bitim réew léegi ñëwal leen ci décaissement yi maanaam lañ ci fere ci mois d' bi suñ chantier bi nekk université chantier université bi def nañ ci un million sept cent vingt mille francs chantier Daaru Xaddim def nañ ci cinq cent soixante deux mille quatre cent francs total ODI maanaam opération defar yoon yi dépensé nañ ci quatorze millions trois cent soixante seize mille quarante sept francs commission environnement def nañ ci cinq cent mille francs total chantier Touba Njaareem def nañ ci un million trois cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent dix francs total chantier Ndaam def nañ ci un million cinq cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent francs nouveau siège Touba ci kanam siège Touba ci kanam bees bi ñuy defar tim defagum nañ ci quatre cent quarante quatre mille francs. commission communication spot yi ñu doon amal ci koor gi yéen ñu ko doon gis ak ca lañ amaloon partenariat moo tax mu toll ci vingt sept millions trois cent quatre vingt quinze mille francs ci comi commission communication. total logistique cinq millions sept cent vingt quatre mille trente et un francs maanaam oto yi. ak gasoil yi ñu soxla yooyu. maanaam li frais yi seesuwaan yi soxlawoo génne nañ ko ñaareel bu nekk cinq cent mille mu nekk un million de francs commission scientifique et culturelle def nañ ci quatre millions six cent douze mille maanaam sëñ daal doon formé yi ñu doon def yëpp total bi mi ngi toll ci quatre millions six cent douze mille. total sous commission leeral cent cinquante trois millions six cent cinquante et un mille cinq cent. li tax mu tollu ko nag dañoo commandé mille lampes domestiques ak cinq yi mooy lampes yi ñuy def ci kër yi yu Touba ci kanam di wecc ko 10 000 dañ ko commandé ak 5000 lampes publiques yi ñuy def ci mbedd yi di ko monté noonu cinq mille lampes lañ ci kii loolu tax mu toll ci 153 millions 651 mille 500 francs total salaire plus charges fixes toll ci 6 millions. quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent francs appui social Ramadan deux vingt et maanaam jàppale gi ñu doon jàppale ñu doon def social social Touba kanam Touba ci kanam def na ci vingt million deux cent cinquante mille francs total commission massification trois cent cinq mille francs total chantier à la base chantier bi def nañ ci cent quarante six mille cent cinquante francs total commission administrative. def nañ ci cent dix sept mille six cent maanaam yu seet soit ni ñu soxlawoo ca bureau ba ak yooyu cent dix sept mille six cent francs frais banque yëpp nekk soixante dix neuf mil cinq cent quatre vingt deux francs total décaissement mois d' avril bi maanaam lañ ñu fi lim lépp ne moom lañ décaissé ci mois d' avril bi suñ ko boolee mooy nekk deux cent quarante million cinq cent cinquante neuf mille huit cent vingt francs léegi total encaissement mois d' avril bi nekk cent cinquante cinq millions 556 mille 398 suñu ci moyen maanaam suñu ci génnee soldu mois d' avril bi 85 millions 3 mille 422 soldu mois de mars bi nekk 999 millions 561 mille 419 soldu net mois d' avril maanaam li des ci compte Touba ci kanam ci mois d' avril bi day nekk 914 millions 557 mille 997 francs loolu moo des ci compte Touba ci kanam ci mois d' avril bi ñuy jëfal ñëpp nag di ñaanal Touba ci kanam mu ak mu atteindre objectif am muy 2 millions de murid yu muy ut bu ko defee weer bu nekk ñuy am 2 milliards weer bu nekk ñuy am 2 milliards at bi di nekk 24 milliards kon bu ko defee nuñ bëgg Touba mel ko rek yaakaar naa dina ko mën a mel comme ni ko suñu Fallou Ndiaye di waxee saa ne rek jërë ngeen jëf ñu ngi ziar